aoudu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu topp ci seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi leen di ndokkeel di leen balu ak bu baax di rafetlu bu baax ànd bi ngeen ànd ak ñun encore ñu ngi wax comme ni ñu ko waxee woon ci vidéo yi passé wax naa ne principe bi nga xam ne moom lañ waxoon ci la liggéey bi daan doxee dafa am ay soppite léegi li ëpp ci li ngeen may laaj def naa ci ay vidéo bu pare ñu bañ def transfert d'argent bañ envoyé di vocal ngeen dugg ci page YouTube bi rek ngeen seet li ngeen gént incha allah mën ngeen ko gis li ci ëpp defe naa liggéey boobu daal dana gën a yombal ci man liggéey bi ak yéen ñëpp incha allah comme ni ñu ko baaxoo koo xam ne nag bëgg nga di maintenir loolu am na format ba tey mais boobu nekkatul 500 c'est 2000 francs maanaam mën ngeen def transfert d'argent ci beneen chaîne bi foofu loolu moo fa continuer ba léegi ku bëgg a continuer foofu na mën nga continuer mais nekkul 500 2000 francs la euh, beneen chaîne la comme ni ma ko waxee mais même numéro bi moo fa nekk euh, ku am gént jaar leen ci yoon yooyu li ëpp ci li may laaj boo bindee rek da nga jot vidéo bi tey ñëw ci beneen buntu ci firi gént mooy ñu indi beneen bunt boo xam dañuy waxtaan ci gént xaalis dañoo bëgg a defaat ci ay quelques vidéos yu tegaloo yoo xam ne lépp lu ajoote ci xaalis ku ci gént mën ngaa am lu leer naññ te doo ma woo doo fay 500 doo vocal li ngay njëpp njëkk a jàpp ko gént xaalis dafa am ñaar ci firi benn bi dañuy xool ndax xaalis bi nga gént bàlle ma def xaalis bi monnaie la wala xaalis bi billet la maanaam weccit la wala billet la loolu nag boroom xam-xam yi nga xam ne ci wàllum xam-xam bi ñu tuddee tafsirul axlaam ñoom ñoo ci jàngale ay wuute da cee am ci seen biir danañ wax kenn ku nekk gis-gisam buñ ci amee benn mawqif maanaam benn position danañ ko wax incha allah li ngay jàpp mooy ñoom ñëpp dañoo d'accord ci ne wala boog ñenn ñoom dañoo d'accord ci ne xaalis foo ko gisee ci gént fii ak mi ngi nekk billet baax na dafa am ñu wax ci ñoom ne bie ci xaalis amul fu mu bonee ci gént fépp baax am ñu ne déedéet quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix pour cent ci biir moo baax waaye am na ay quelques fo quelques euh, points yoo xam ne baaxul ñaari wax ngoog ñu ne kat bu fekkee xaalis bi moom dafa nekk monnaie dañoo d'accord ci ñi ëpp ci ñoom ne dara baaxu ci xaalis monnaie baaxul benn yoon am na ñu ne déedéet sax mën ngaa dem ba quatre-vingt-quinze pour cent lu mu nee nii am na cinq pour cent léeg-léeg fu muy baaxee bu dee topp ngeen ci vidéo yi incha allah danañ joxe exemple danañ joxe détail yëpp awalan maanaam li ñu njëkkee mooy da ngaa gént xaalisu weccit xaalis boo xam ne monnaie la weccit xaalisu weccit ci gént. danga nga gis mu tegee ci kaw taabal bi wala ci sa siège wala ci kaw lal bi wala nga làmb sa poos gis weccit moo fi nekk wala ñuy jox la weccit xaal boo ko mën a gisee ci yooyu mën a tudd baaxul dañu wax day firi ay coono day firi ay njàqare day firi tolof tolof baaxul ci gént day firi léeg ñàkk maanaam banque loolu benn wax la wala boog danga doon dox ci mbedd nga for xaalis xaalis bi nga for weccit la mone la baaxul ci gént lan lay firi ñaar la benn bi dina firi ay coow histoire walla xuloo ak kenn ci nit ñi la jege wala ci sa famille maanaam problème daal coow lay firi baaxul wala ñàkk for xaalis ci yoon mu nekk weccit baaxul da ngaa gis xaalisu monnaie bu bëree bare bari weccit wu baari mu nekk xaalis nag bu dee daa nekk xànjar wala yeneen xaalis yooyu dinaa ci ñëw monnaie bu bëree bari nga gént gis ko baaxul day firi ay problème ak i tolof tolof ak i njàqare yu tar baaxul kooku nag wuute am na ci am na kenn ci borom xam-xam yi ku ne déedéet mu weccit wu bari moom bari lool baax na ci gën day fii di jógee ci ñàkk dem ci koom ñaar yooyu am na ci waaye li leen différencier fii lu tuuti la mooy mone bi ndax dafa nekk xaalis maanaam mone xaalis comme pièces yi nga gis xaalis la mais léeg-léeg nga gis xaalis boo xam ne nekkul vrai xaalis dafay nekk beneen matière nekk xaalis boo xam ne day woon xaalis bi baaxul comme mone boo xam ne xànjar la mone boo xam ne përëm la defe naa yooyu yàgg ngeen di ko gis baaxul ci génn téye nga weccit wi xam lii weccit la waaye bi nga ko vérifié xam nga ne monnaie bii du xaalis baaxul ci génn xam nga xaalis matière la yeneen matière dafa am mone bi monnaie la waaye nekkul matière bu boobaa baaxul day firi euh, njàqare xat-xat ak tolof-tolof yu baree bari waaye bu fekkee dafa nekk xaalis bu bëree bari ba pare nekk weccit bokkul ak détail yu njëkk yi bi dafa bari ba yow xam ni saako la wala bari na foofu baax na dana fiy jógee ci ñàkk dem ci comme danga nga ànd ak ki nga xam ne moo wax ne baax na foofu bu dee comprendre nga ma kon loolu mooy première partie ci firi dellu ci gént xaalis boo xam ne dafa nekk ci monnaie ñu ñëw ci xaalis boo xam ne billet la billet moom nga gis ci gént balaa ñuy continuer ñu wanaat leen cangat gi defe naa mun ngeen gis moo doon ko génnee léegi cangat gu amul moroom lool ci wàllu kaaraange la waaye surtout ci wàllu bayre koo xam ne da nga am jafe-jafe feebar yoo xam ne seytaane la wala rab la wala jinne la wala liggéey moo la ko teg boo ko jotee yàlla mën na laa dimbale mu dañ ba sati wecc waaye koo xam ne itam sa mbir mooy ubbeeku nga bëgg ci wàllu bayre ubbeeku nga bëgg ci wàllu wërsëg gu yaatu lijjanti ay mbir mu jafe mën nga boo remontee ci kaw da gis ci yeneen vidéo yi da gis numéro bi incha allah xëy na dana leen ko defal commentaire xaalis bi nga gis nekkul monnaie mais billet la lan lay firi wax naa la dafa am ñoo xam dañu wax ne fépp baax na am ñu ne déedéet quatre vingt pour cent moo baax am na di pour cent fu mu dul baax dana ñëw ci détails yi benn benn li ngay njëkk a jàpp xaalis bu bari lool ci mone lan lay firi ñëpp ñoo ko bokk day firi am yaakaar la nga yaakaar yàlla dina la dimbale dina sotti te dana ci jot mu nekk xéewal ci jàmm ak salaam benn wala léeg dana firi wërsëg wu yaatu wërsëg moom yemul ci xaalis ci yu bari la yam la bokk dana firi xabaar bu mbégtee xabaaru bànneex ci yow dana firi stabilité ak dal ci sa famille wala ci kër gi par exemple couple boo xam dañoo nekkoon ciy jafe-jafe nekk ci tolof-tolof gént gis xaalis moo ne day firi stabilité ak jàmm ci nit ki koo xam ne dafa laa fekk ci ay problème ak i xat-xat ngeen di gis xaalis bu bari ci ay bie dana firi estabilité dana firi jàmm ceew célibataire nga amagoo jëkkër danga gént ñu jox la xaalis ci jigéen xa célibataire bu jigéen gént ñi jox la xaalis boo xam ne dafa nekk biais ne ngeen baal bu fekkee dafa am nit ku sii wala président wala ñoo ñoo jox xaalis bi moo ne monnaie biais euh, comme par exemple biais bi dama ciy ñëw ci beneen vidéo dégg lan lay firi baax Euh, boroom kër labat gu gaaw jëkkër bu gaaw baax na ci gént nit koo xam ne sa jàmm yàlla da nga koo négliger da nga cee sàggan sa julli matul li la yàlla sant defoo ci lu bari nga gént gis xaalisu biir léeg-léeg day firi changement day firi soppeeku jóge ci ñaawteef yi nga nekkoon jóge ci ñàkk jàmm yàlla dem ci jàmm yàlla kon baax na ci gént xaalisu biir yooyu yëpp yu baax la da gént gis xaalisu biir bu bari malet la xaalis bu bari lool nekk ci malet nga gént gis lan lay firi day firi alal dëggantaan day firi xaalis dëggantaan wala mu firi alal joo xam ne da ko jëlee ci miraas benn la rek wala mu firi njaboot gu barkeel maanaam ay doom yu bari te ànd ak barke kon baax na danga nga gént gis xaalis boo xam ne benn billet la benn billet xaalis ci jigéen walla ci góor boo xam ne am nga soxna dana firi doom ju baax doom ju barkeel doom joo xam ne ku nit ñi di bàyyi xel ci diine ci barkeel lay doon incha allah baax na ci gént da nga gént xaalis billet mu réer nga ñàkk ko dafa wadd dañ koo sàcc dafa réer baaxul ci gént kon ki la waxoon quatre vingt pour cent yaa ngi gis am na fu mu bone baaxul day firi tolof tolof ak i xat-xat surtout ci biir famille bi su fekkee couple la dana firi réeroo wala xat-xat bu dee borom njaboot léegi dina firi problème ci kër gi baaxul ci gént ala kulli xaalim gént di di wàññi xaalis billet di ko wàññi di ko compter baaxul ci gént boo ma toppee sànq ba léegi maa ngi wax baax da nga téye xaalis di compter nii di compter cent mille deux cent mil di compter xaalis baaxul day firi ñàkk sa alal <laughs> gënul ci gént bokkul ak dem jëli ko ci banque bi danaa ci ñëw dafa am vidéo bi ci ñëw moo tax dafa am koo xam ne xam nga ko nga gént mu jël si yow alal daa jël sa xaalis yaa ko ko jox dalaa laaj xaalis nga jox ko ndax baax na am baaxul dana lay laaj ñaar ndax xam nga ko nga ne waaw xam naa ko ñu ne la baax na lool dana firi cofeel dana firi jàmmoo dana firi relation bu dëgër ci sa diggante ak kooku nga ne déedéet xaw ma ko ñu la baaxul gis nga boo ma dee topp maa ngi tudd ay points yoo xam ne bii baaxul ci kon nga ne xaw ma ko ñu la baaxul day firi séq ak warkat wala naafeq baaxul ci gént xaalis boo xam ni nekkul dollar nekkul CFA bi nga miin dafa nekk xaalisu dollar wala xaalisu euro wala beneen dëkk ci xaalis yi gën a euh, ëpp doole yow sa xaalis bi nga tiim nga gént gis ko ci jigéen boo xam ne amuloo jëkkër dana firi jëkkër joo xam ne ku amee responsabilité lay doon maanaam ndombal tànk lu kawe baax na ci gént yaa ngi sëy day firi xéewal day firi texe góor nga am nga soxna wala amoo soxna day firi bénéfice wala njarte ci commerce baax na ci gént lool yàlla yàlla def ko te def ci tawfiix maa ngi ñëw ci beneen vidéo ci ñu waxtaane ci gént néew jox la xaalis wala jël si yow xaalis wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu